kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël tey aaya fanweer ak ñeent aaya 34 ci suratul anfal wa ma lahum alla yu'azzibahum allah إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين kon mbokk yi ñu ngi santar suñu boroom mi ñu dajale ci àllarba ji nga xam ne mooy 19 décembre ci 2018 di tombeek le 11 ci rabiu saani ci 1418 ñu sant suñu boroom ci tawfiix bim ñu may ci ñuy dëppoo la yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam daan bégal xeet bi yonent boobu nga xam ne moo ñu daan bégal ci ne du am benn mbooloo boo xam ni ay jullit lañ ñu dem daje ci néegu yàlla ba ñu jël téereb yàlla ba di ko jàng seen biir lu dul yàlla wàcce ci ñoom ak dal yiir leen ak yërmandeem sant ay malaakaam ñu ñëw wër leen mu leen di tudd ca malaaka yu kawe ya ne fa moom yal na yàlla boole ci suñ jataay bi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala kon ci loolu ñu fàtte yi ne téere bi yàlla baa ngi nii amul benn xarf boo xam ne danga cay jàng lu dul ñu bindal la ca tuyaaba doonte ne ni borom xam-xam yi dañu naan loolu la ngënee lëm di bari bari bari waa ji jëloon téere ba rek commencé fatiha baqara ba naasi tari ko ci làmmiñam jàll ka nga xam ne dafa jëloon benn aaya settantal aaya ba xam la ca nekk ci ndigal la ci nekk ci tere ba comprendre ko jóg fa séena koo jëfe benn aaya boobu moo ëpp valeur téere ba nga tari yépp loolu kon tax ñu daje jël lenn ci aayaat di ko settantal la ca yàlla def ci ay ndigali ki tere yal na yàlla xamal ñu ko ca wërsëgal ñu jëfe ko kon incha allah cheikh Ousmane gis ngeen ko sànq ñëw na fi mais dafa am benn ngànt bu ko dab léegi kon mu yónnee ñu ndongom li di Aliou Sarr incha allah mu fas yéenu jàngal bismillah mu ngi noonu wa ma lahum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسبية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu borom mu ni mooy yéeféer yi ñoom wa ma lahum alla yuazibahum allah lan moo leen ñeel ba yàlla du leen mbugal wa hum yasudduuna an almasjid alxaram ca ñoom day ña ngay fegaate ca masjidul xaram di jàkka ju ñu warmal jooju ca makka wa ma kaanu awliyaa ca ñoom day nekk ñuy féetey suñu boroom yàlla am ñu ko firi fi firi nekk ñu féetey masjidul haram in awliyauhu lay féetey borom bi day illa almuttaquun mooy du ñenn lu dul ña ragal yàlla rek walakin aktharahum la yaalamuun waaye li ëpp ci ñoom xamuñu wa ma kaana salaatuhum inda albayti du nekk seeni julli ca néeg ba muy kaaba ga illa mukaan wa tasdiya lu dul loo xam ne nii ay sifla lay doon mooy di wali saka sifle ko yuuxu wa tasdiya ak tàccu yu ñuy tàccu fa zuuqu al azab mos leen mbëgal mi bima kuntum takfuruun ci li ngeen nekkoon di ko weddi inna allazina kafaru yunfiquuna amwaalahum liyasuddu an sabilillah yéefir yi day ñi ngi dépense seen alal ngir di fegaate ci yoonu yàlla fa sa yunfiquunaha thumma takunu alayhim xasra xel sa nañ koo dépensé gannaaw ba mu wëlbati ko nekk ci ñoom pertaange thumma yuglabuun gannaaw ba ñu not leen walladina kafaru ila jahannama yuxcharuun te yéefir yi day ca sawara la ñuy doon ñu ñuy fang jëmale fa mi ngi noonu mbokk bi ñu fi mujjee daje àllarba ji wees bokkoon na kokkali saboote yu yéeféer yi doon saboote yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jullit ñi ca mooy taxaw naan ey yàlla lii muhammad di wax bu dee dëgg la tawal ci ñun ay xeer yu jóge kaw asamaan bu ko defee buñ gisul ay xeer ñu ne voilà kon lii nekkul dara lu dul lii bi maam yi jëkk ya suñu borom nag ne woon xam leen ne duma leen mbugal fekk yaa ngi ci seen biir bokk na lu ñu waxoon yàlla heure buy mbugal xeet day jëkka génne bi yonentam borom bi ne duma leen mbugal it fekk ñi ngi jéggalu ca la shakk ni kéeféer goo mën a def bokk na lu gën a garaaw jël jaasi xeex ab yonent waaye suñu borom mu ne bu ñu jéggaloo ma bal leen am ma suñu bindu tey borom bi mu ne nag waaw ñii di waa makka ana lu leen di mën a fegal ba duñu leen mbugal ca ñoom ñi ngi fekk nit ñi ci masjidul haram mbokk masjidul haram di kaaba ga ba yàllay sant xaritam ba jaamam ba mu tabax ko da ko tabaxaloon ngir ñan li taifin wal aakifin wal qaimin wal ruka i sujud da ko tabax pour ña fay ñëw di aj si di ko wër ña fay ñëw di ihtikaaf ña fay ñëw di rukoo ko sujud ca mooy ñiy wéetal yàlla jalla waala amma waa makka moom ne képp koo xam ne nii day wéetal yàlla du jege kaaba gi yasudduuna anil masjid al haram borom bi mun a ca ñoom day nekkuñu wàlli yuy yàlla naam nekkuñu wàlli yuy yàlla ah yàlla kon ñan mooy say wàlli yu mu ne wa samay wàlli yu mooy ñi ragal yàlla mbokk julita tey jii li ëpp ci nit ñi soo leen laajoon kan mooy wàlli yu daañ na la am na wali bu ne Tamba am na bu nekk Kédougou am na bu nekk Thiès am na bu nekk Matam ila axiri te nit ñi jàpp ñu ne waliyu mën naa nekk doomu aadama bi dund nga dégg ñu naan diw day maamam waliyu kamal la woon loolee mbokk suñuy xalaat ak suñuy wax rek la amma bu dee ci gisuñu diine ñaar dong ñooy dox ci kaw suuf awliyaullah ak awliyaau sheytaan imma nga bokk ci waliyu yàlla yi mooy ñan almuttaquun ñan ñooy almuttaquun mooy ñi gëm gëm bu sell ca fas yéene taxawee ndigali yàlla yi ñi ñooy almuttaquun ñii ñëpp min awliya illah lañu doonte ne ne wëliyu yàlla yi yemuñu comme tey boo doon jël exemple ñu ne tey armée yépp ñu ne c'est des militaires waaye nag soo demee seen biir da nga fa fekk des adjudants des caporals des lieutenants des ba baa nga yëg général loolee kon mi ngi noonu waaye bu ñuy wëliyu mooy kan képp ko gëm yàlla wéetal ko te fa seeni def ndigal yi min awliya illah waaw kon yéeféer yi na ñoom waliyu yàlla nag lañu lu tax nee nañ ñoom sëti ibrahim lañu muy benn ñoom ñoo dëkke makka ca kaaba ga muy ñaar ñu ne ñoom rek ñooy féete yàlla mbokk erreur boobu bi l'islam ñëwee ngir dégager ko dem nañ ba jëmm ay doomu aadama din indiwaat ko ci biir l'islam am nañ ñoo xam ne gëm nañ ñu sant tel boo ko xisee ba sant moom ca ñu gën a jege yàlla nga bokk bal ku bëgg a jege yàlla sax day ñëw sukkandiku ci yow pour nga yóbbu ko ci yàlla ñu ngi noonu am na sant yoo xam ne boo ca bokkee takkal cinquante femmes del naan sangara del lekk riba del def lu ko neex mais maadaama diw la sant rek ku mel noonu min awliya illa nit ñi buñ ko gisee dañu war a foq mbaxane yi sumi dàll yi raamal ko lu tax mooy moom kat caam la sant innahu min awliya illa loolee mbokk suñuy wax rek la wàllu yu yàlla du deret moo la koy may wàllu yu yàlla du ak juddu wàllu yu yàlla du ab dëkk booy dëkk wàllu yu yàlla mooy lan mooy ñi nga xam ne almuttaquun ñan ñooy almuttaquun ñi nga xam ne dañoo am al imaanu saxiix wal amalu saalix keneen ku dul kii bokk ci borom bi nag mu ne waaye li ëpp ci doomu aadama yi ñoom comprendre ñu loolu ñu ngi noonu comprendre ñu loolu mu bokkoon ci li waa Makka daan def mooy buñ masaan daje ci kaaba gi lan mooy seen jaamu yàlla mooy sifle tàccu sifle tàccu ne loolu la ñuy màggale yàlla mbokk loolee ba koy lislaam di daj ak neexanu ma ñu am ci kaw lislaam ci biir lislaam tey lan ngay gis mbokk ci daje diine yi yëkkati woy fettaxu fettaxu moog tàccu benn la dag lañ nga dégg ay son yoo xam ne fettaxu yéen cay def wallahi amul sax soraanoo suñu borom nee na yéefiri dañ daan yem ci tàccu mais ñun dañ cee boole ay ndënd ne dañuy jaamu yàlla am déet loolee mokk lan mooy waral loolu mooy parce que jullit ñi xamatuñu luy alquran waaye damaa jàpp jullit bu xam alquran dégg suñu borom di ŋàññ yéefiri ne ñoom de lañ doon jaamu yàlla dañ doon yuuxoo ko tàccu ah lépp loo xam ne yuuxoo tàccoog fettaxu ak boole ko kum pecc ca loolee ak néew tey këru jullit yu ci mucc loolee kon du woon am waaye mbokk doomu aadama yi leneen lañ leen jàngal lu dul alquran bokk na fitna bu rëy bu ñu créé mu yàgg fi des siècles ñu ne tafsirul quran sawabuhu qata wa qat'uhu kufr nekk di firi alquran boo waxee dëgg juum nga boo juumee nag yéefér nga looloo tax nga gis ñoo xam ne dañ naan alquran boo dégg ñu koy firi dawal waaw mbokk téere bi suñu borom mu ne maa ko wàcc ci yow li tubayyina li naasi ma nuzila ilayhim maa ko wàcc ngiree nga leeral ko ahlul kitaab ba yàlla wàccoon tawratul injil suñu borom ne axasna misaaqakum la tubayyinannahu li nas wala taktumuuna ne waa tawrat leeral leen ko peuple yi waa injil leeral leen ko peuple yi la nga xamee ne it mooy islam mu ne leeral leen alquran mais malheureusement nit ñi lu ñu xam suñ caam nee na suñ sow nee na suñ dembe nee na mais xamatuñu téere bi yàlla bi looloo tax ba li ëpp suñuy diine yuuxu la tàccu la fecc la mi ngi noonu sama mbokk bi journaliste Sakho mi ngi may fàttali benn tubaab daa ànd ak doomam ñu romb benn mbooloo ñoom ñëpp ñi nga dar seen ndox yoo mu ne papa donne-leur quelque chose parce que peut-être qu'ils ont faim yaa ngi dégg waaw yaa ngi dégg waaw papa may leen dara ñi xam naa dañuy xiif de papa ñu ne ko non non non non non xiifuñu. mu ne mais pourquoi il crie comme ça yaa ngi di xale bu ndaw ah mbokk nga xam ne kon sunu borom diine ji mu indi di diiney fitra nga xam ne ñépp a ko war a comprendre scientifique ba nekk ca laboratoire ba baykat ba nekk ci àll ba nappkat bu nekk biir géej ñépp a comprendre diine ju sell ju leer ji kon am na yoo xam ne sol ay sagar gàddu ay ndënd dajaloo yuuxu fecci fekkaxu góor ak jigéen jaxasoo wallahi loolu bokkul ci lislaam dañ ko cee dugal loolu tax suñu borom ne wa ma kaana salaatuhum inda al bayti illa tasdiqan illa mi ngi noonu wa tasdiya borom boobu subhanahu wa taala nag nekkoon yéen yéeféer yi na ngeen mos seen mbugal ca la nga xam ne nii moom ngeen nekkoon di ko weddi te it noonu la ko suñu borom defee mooy ba yàlla génnee ab yonentam ñaari at la ca teg mboolem notable yi Quraysh yi suñu borom dajeeg ñoom ca Badr ñu rey ca juróom-ñaar fukk yeew ca juróom-ñaar fukk yóbbu Madina mi ngi noonu borom bi nag wëlbatiku ne yéeféer yi day ñi ngi nii ñi ngi dépense seen alal ngiree fekk ci yoonu yàlla daañ ko dépensé mu wëlbatiku nekk ci ñoom pertaange téewul dañ leen di not loolu amoon na démb day répété wu ba ila yumi diin mbokk waa Badr biñ leen gañee njëgg ga yonent bi bëggoon a jël Abu Sufyaan def na waa Makka lii kenn du ci laal dara dañ koy ute ay mercenaires dem xeex Muhammad rey ko ak képp ko ànd ak moom ñu dem luy deux mille mercenaires ànd ak mille yoo xam ne biir Makka lañ jógee ñuy trois mille ñoom ñoo daje woon xare Uhud ne dañuy fay l'islam ci kaw suuf bañ fa demee pertang lañ fa jëlee ñu tegaat ci ay at ñu dajale waat waa Xaybar waa Xatfaan dajale armée bu rëy ñëw ndar képp Madinatul Munawwara mi ngi noonu lu jege un mois luñ fa jëlee pertange suñu borom sànni ci ñoom ngelaw boo xam ne seeni maam mosuñu xam lu mel noonu ñu dellu pertange loolu nag la borom bi wax ca ña tombe wala yonent bi waaye li borom bi ne sa yunfiquunaha dañ ko dépense day wéy bi ila yawmi diin looloo tax ba mbokk julit ni ñu leen ko waxoon ci tafsir yi passé moo di ne ne tey jii la nga xamee ni ni mooy yàqkat yi nekk un peu partout dans le monde ca Occident mooy capital ba lu ne dañ koy def ngir freiner l'islam ca luñ gën a xeex l'islam l'islam gën a continuer tey jii mboole mi xalaatkat ci àdduna bi d'accord nañ ne benn religion mooy avancé ci kaw suuf mooy l'islam mi nga noonu demal Amérique demal France demal Union soviétique demal foo mën a dem ci àdduna bi da ngay gis ni jullit ñi dañuy multiplier multiplier wu ay seeni doom yu juddoo ci ñoom waxuma ay immigré mais ñu juddoo ci ñoom ay tubaab pur ñu ñëw dugg ci biir l'islam kon loolu borom bi wax ne sa yunfiquunaha summa yakunu alayhim xasara summa yuxlabuun ca teewul noo ne ñuy perte àdduna àllaaxira it noonu lañ leen di dajalee ci kanamu borom bi mi ngi noonu cheikhal yi
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيأ- ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم يوم المولى واليوم النصير barakallahu fiikum suñu borom mu ni li yamiza allahu alxabisa min altayib ngir yee yàlla ràññetle ay teqale ràññetle la nga xamee ne mooy la sobewu mu yéeféer ya min altayib ca ñu teey ya muy julit ñi wa yajal alxabisa baadahu ala baad bu ko defee mu jël la sobewu teg ko lenn la ca kaw la ca des fa yarkumahu jamia mu daal di koy moxoñee boole ko léppam fa yajaluhu fi jahannam daal di koy def rankale leen ci biir jahannama ulaika hum alxaasiruun ñooñu rek ñooy ña perte qul lilazina kafaru in yantahu yugfar lahum ma qad salaf neel yéeféer yi bu ñu bàyyee li ñu nekkee yàlla jéggal leen la jiitu woon waaye wa in yaudu faqad madat sunnatul awwalin bu ñu delluwaate di xeex diine romboon na aada ñi fi jiitu woon fa yàlla jaar ak ñoom yéen jullit yi nag wa qaatiluhum xatta la takuna fitna xeex leen ak ñoom baba mu bañ a nekkati fitna mi ngi noonu wa yakuna diinu kulluhu lillah diine jëpp wëlbatikuwaat nekk ñel yàlla fa in intahaw fa inna allaha bima ya'maluna basir bu ñu bàyyee day xam leen ne yàlla li ñuy def mi ngi koy gis waaye wa in tawallaw bu ñu continuer nag dëdd wane gannaaw faalamu anna allaha mawlaakum yéen jullit ñi xam leen ne yàlla mooy seen péete ni'mal mawla wa ni'mal nasir aka baax ci ku ñuy féetewoo aka baax ci kuy dimbilaate mi ngi noonu mbokk suñu boroom nee na yéeféer fu mu mën a jaar daañ ko dajale ci kanamu borom bi jalla waala bu keroogee yàlla it dana dajale mboole mi julit ñépp ànd suñu borom yàlla nag ñëw séparé leen teqale ña baax ak ña bon keroog la ñuy teqaale teqale diggante ndey ak doom diggante jëkkër ak jabar diggante frère diggante ay dëkkandoo diggante ay collègue de service ay képp koo xam ne dafa sobe woon di bokkaale kat suñu borom dana ko génnee teqale ko ak ñi nga xam ne ñooñe tey bu ko defee ñooñee nga xam ne ay sobe lañu suñu borom yàlla mu ne mu boole lenn la ca la ca des boole yéeféer yaag mushrikuuna yaag ñépp ñoo xam ne nii dañoo bokkoon ca ahlul kitaab ak ca gëmuñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam boole leen ñoom ñépp rankale leen jóor leen ci biir jahannam onte ne ne li ngeen yàgg a dégg rasul sallallahu alayhi wasallam wax ci lu tiitlu tiitlu tiitlu nee na doomi aadama yi mas a wàcc ci kaw suuf neuf cent quatre-vingt-dix-neuf sur mille ci waa sawara lañ bokk yàlla nañ ci yàlla musal borom ba mu mu ni ñoom rek ñoo ñi perte nga la waay jullit xamal kan mooy ki perte ki dee dem sawara kii mooy ki perte de waaye jullit tànk yaa ngi ci loo xam ne boo ca dee dem ajjana wallahi perto sawaaun ña ngi la tëj ci biir kaso ba di la duma guddi di la duma bëccëg sawaaun yaa ngi condamné wu ci cancer yi sawaaun yaa ngi nekk tumuranke foo mën a nekk sawaaun loo mën a dunde mais bu dee yaa ngi ci yoon boo xam ne ngërëmal yàlla nga boo dee ajjana nga jëm anta minal faizin ci ñi texe nga bokk waaye nekkal chef d'état États-Unis nekkal le plus grand milliardaire de la terre nekkal ki dàq noos ci kaw suuf bu dee jahannama mooy sa yoon yaa ngi bokk ci ñi perte ñi perte rek mooy ñooñu sawar ulaika humul xaasirun borom bi nag ne ay yow yonent bi waxal yéeféer yi su ngeen bàyyee li ngeen nekkee yàlla baal leen li jiitu gaa yi suñu borom mi ngi noonu mooy borom yërmande ji woote boobu am nañu ko dégg ca ñoom Xaalid ibn Walid ca la bokk Ikrima ibn Abi Jahl Amr ibn al-As kàngam yooyu nga xam ne ci ñi gënoon a xeex yonent bi lañ bokk ay ñeneen ñoom abbas ibnul mutalib ila axiri ila axiri ñooñu ñooy ña nga xam ne nii dégg nañ woote ba am maa nag suñu borom mu ne bi ngeen continuer di xeex xam leen ne li daloon ñu jiitu yëpp mi ngi fi rek mooy mbugalu yàlla du teggeeku borom bi nag mu ne yéen jullit yi xeex leen ak yéeféer yi baba fitna bañ a amati fitna boobee am nañu ko firi baba shirk dootul amati kattan ci kaw suuf no am donte ne am nañu koy firee it baba luy gàllankoor l'islam dootul amati ba ku bëgg dund dund diina dund ko loolu it moo tax ba mbokk jullit buntu jihaad tëjuwul du tëju ba ilaa yawmi diin loole mi ngi noonu ñu xam ko bu baax bu donte ne shurut ya daje nañ allahuma lu dul ñun day suñu jamono yàlla may nañu loo xam ne xéewal gu rëy rëy la ndaw ñi war ci profité bañu indi loo xam ne da koy yàq doomu aadama heure boo nekkee ci ay situation ngalawaay dañ naan la diglu lu baax tere lu bon day baax na fii yëg yeggoo ci boo diglu lu boo boo teree lu bon lu gën a bon ñëw kon bàyyi fa lii am déet bokk na xéewal gu ñu yàlla defal tey demal Union soviétique demal France demal Amérique fu la neex mën ngaa am jàkka di noddu mën ngaa nekk di woote ci lislaam nit ñi di dugg ci lislaam ca kenn gàllankooru la tey demal dëkk boo mën a nekk ci kaw suuf da ngay gis ne nit ñaa ngi dund ci lislaam kenn gàllankooru leen daanaka poche yi ci xaw a mujj ay poche yu ndaw la ci ngay dégg léeg-léeg mais dans le cadre général mooy dëkk bu nekk nit ñi am nañ droit tuub dem ci jàkka yi dund lislaam loolu it moo tax ba occasion boobu la ndaw ñi war a jël walla waay ndaw ñi jàng seen diine woote ci diin diine lislaam wone melokaan bu rafet loolu yi mooy tax lis- lislaam bi di continuer amaana ko jàpp ne ah suñu borom nee na rek qaatiluhum fokk dañu war a xeex ak ñoom ñu dajewul ay groupuscule génn ci àdduna bi comme yi ngeen di dégg mbokk yooyu ay musiba la doonte ne ne koo xam ne xam nga dëgg-dëgg da ngay xam ne ñooñu erreur la ñuy def naam ay jurit lañu ña ca ëpp ay jurit lañu waaye erreur la boo xam ne dañ leen a pousser nax leen pour ñu def ko ñooñ ñépp lu ci bari ña leen ngémb mooy occidentaux yi nga xam ne bëgg nañ teg loxo ci réew yi ñu nekk ndax la ca nekk ci seen sous-sol waaye mbokk xam leen ne char de combat ay millions lay jar fetal ay millions lay jar ay xale yoo xam ne lu ci bëri si des chômeurs mënuñu xëy xëy am armée boo xam ne sophistiqué la ba di të ay état état di ko xeex ay at munta nekk fokk mu am ñu nekk seen gannaaw loolu fokk ñu xam ko su ko defee ndaw ñi ngalawaay ñu góorgóorlu ba ñu dugg ci yu defe noonu tey jii la nga xamee ne ni mooy jihaad bi gën a rëy mooy li borom xam-xam yi doon wax bokk na ci mag ñi nga xam ne wër nañ àdduna am expérience mel na ay cheikh Nasiruddin Albani ñi nga xam ne faatu nañ bu yàggul dañ naan jihaad bi tey ñaar la at tasfiya wa tarbiya at tasfiya mooy fexe ba leeral diini ba pas-pasu lislaam bu rafet nekk ci xolu jullit ñi mi nga noonu tey jii jullit ñi ni ñu nekk nii kee ngay yaakaar ma sàmba kee yaakaar ma demba kee jàpp ne ma xujj moo koy dugal àjjana ila axiri la nga xam ne moo gën a am solo nañ jàngal nit ñi delloo leen ci tawxid waaye it yaraat islam ndawi lislaam bañ dundaat diine bu rafet lii mooy la nga xam ne mooy la gën a am solo lii buñ ko defee rek dana doon royukaay bu rafet boo xam ne yéefir yi daan dugg ci biir lislaam ca kenn du leen bunduxataal baram boobu nag subhanahu wa taala ne yéeféer yi heure bu ñu bàyyee yàlla moom la ñuy def xam na ko borom bi nag ne bu ñu continuer ca la nga xam ne moom la ñu nekk ca mooy xeex lislaam xam leen yéen yàlla mooy seen péete doy na baax na ku ñuy féetewoo te it baax na koy dimbilaatoo te it mbokk jullit ay jullit heure bu ñu demee ba jëm ci jihaad heure bu ñu demee ba jëm ci commerce heure bu ñu demee ba jëm ci lu ñuy sàkku ci àdduna kenn rek la ñuy sukkandikoo muy seen boroom bi nga xam ne moo gën ci ku ñuy su sukkandikoo te it mooy gën gën ci koy dimbilaate mi ngi noonu Cheikh Ali.
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم barakallahu fikum suñu borom kon mu ne واعلموا أن ما غنمتم من شيء xam leen nag ne lépp lu ngeen gàñe ci lu mën a doon fa anna lillahi xumusa dana ñeel yàlla juróomeel ba nañ ko xaaj juróomi xaaj benn ba yàllaa ko moom wali rasul dana ñeel yonente ba wali zil qurba dana ñeel jege ñaale yonente ba wal yataama ak jirim ya wal masaakin ak miskin ya wabni sabil ak ña nga xam ne dañoo nekk ay doomi yoon ay tumuranke ci dëkk ba in kuntum amantum billah su dee nekk ngeen di gëm yàlla wa ma anzalna ala abdina di gëm lañu wàcc ci sunu jaam bi yowmal furqaan ci bisu teqalee ba yowmal taqal jamaan bis ba nga xam ne ci la ñaari kuréel ya doon daje ñaari mbooloo ya wallahu ala kulli shay'in qadir yàlla nag bépp mbir mooy ka ca am kàttan is antum bil udwati dunya jamono ba ngeen di nekk ca catu xur wa gën a jege madina wa hum bil udwati al quswa ñoom ñu nekk ca catu xur ba gën a sori madina wa rakbu asfala minkum amma la nga xam ne mooy gawaru abu sufyan ga moom moo leen gën a suufe ma nga jaar ca boori géej muy caravane ba walaw tawaatum bu doon da ngeen a joxante ab rendez-vous day laxtalaftum fil mi'at kon da ngeen wuute ca place bi ngeen war a daje walakin li yaqdi allah waaye ngiree yàlla dogal amran kaana maf'ula mbir boo xam ne fokk mu nekkoon luy nekk li yahlika man halaka am bayyina ngiree mu daal di alku ka nga xam ne nii dafay alku ci layu leer wa yaxya mu daal di dund man xayya ka nga xam ne day day dund an bayyina ci layu leer wa inna allaha la samiun alim sa borom yàlla nag mooy aji dégg di aji xam lépp lu mën a doon jalla waala mbokk suñu borom day wax fii ci début saar ba yéen a ngi dégg borom bi ne yasalunaka anil anfal ñu ngi lay laaj li ñu gàñi nu muy demee borom bi ci détail mu wërbatu ko fii ne xam leen ne bu ngeen di jihaat lépp loo xam ne gañe ngeen ko ci noon yi nañ ko xaaj juróomi cër benn cër ba ñu jox ko teg ko ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ñoo xam ne ñoom lañ ko jagleel ñooñu ñu ko jagleel mooy lan mooy yonent bi moo koy gérer ngiree ci loo xam ni benn dana ci mën a taxawu famim taxawu ci la nga xame ni ni mooy lay bett lislaam waaye itamit ñi nga xam ne ñooy famille bi sos ci moom di bani haashim bani mutalib nga xam ne ñooy famille yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am gàllankoor bu lislaam teg ci ñoom mooy ñoom du ñu lekk sarax du ñu lekk zakat kon ñoom na yonent bi di jël ci li ñu gañe di leen ci jox mi ngi noonu gannaaw ba it képp ku wax jihaad wax góor ñi dee bàyyi ay famille yoo xam ne ay jirim ñoo fay nekk ngi noonu jirim yooyu tamit nañ ko jël charge di leen taxawu naka noonu it tamit société bi am na ay miskin miskin yooyu ñu jël ci ñu jox leen naka noonu it islam toujours du ñàkk ay ñu jóge feneen ñëw ci dëkk bi tumuranke nañ ci jël jox leen bu dee ñeenti yi ci des ñeenti cër yi ñu jël ko nag séddale ko ña nga xam ne ñoo nekk ci biir armée bi borom boobu subhanahu wa taala nag ne nañ ko doxali nii su dee gëm ngeen lañu wàccee ci bisu furqaan mooy bis bi yàlla teqali diggante dëgg ak fen te mooy bisu badr mbokk bisu badr ña ko fekke woon ca ay boromi xel ñoom ñépp xam nañ ne muhammad mii day yonenti yàlla la ndax mënuñu comprendre junni nit ñu bokk fu ñu yaroo bokk fu ñu lépp daje ñetti téeméer ñu gaña leen gañaay bu leer bi kon kii ànd nag ndimbalu yàlla mu yomul furqaan borom bi nee na bis bi ñaari kuréel yi di daje détaillé plan de guerre bi ni muy demee te loolu it boo demee am na ñoo xam ne ay artiste lañu dañuy wax art bi nekk ci alquran suñu borom dafa détaillé plan de guerre bi bi ñëwee ba ci xur bi yonent bi campé fële yéefir yi campé fële ñu nekk di séenante xuru badr bi nekk la nga xam ne mooy seen diggante borom bi nag ne moom moo am kattan ci lépp ndax lu waral loolu mooy bu doonte ne ne yonent bi dafa d'accord ak waa Makka nañ daje benn place ñu xeex borom bi nee na kon duñ fa daje da ngay gis ñee daan daw wala ñii daan daw te it duñ mën a am heure boo xam ne ca la ñuy daje exact waaye yàlla moo dogal mbir boo xam ne fokk mu doon lu am ca it mbokk julit am na lu ñu doon noonu suñuy maam bi ñu tubaab bi notee yàqal ñu ko sunu maam yi lu ñu daan wax mooy mbir bi xaw dañ naan yàlla def am déet am maa gone tey luy dégg waaye dama gën rek par hasard rek dajeeg moom gis ngeen boo ko hasard ñëkk a gëm mooy ñi weddi yàlla ñoom ñoo jàpp ne tout ce qui se passe ci àdduna bi yëpp c'est le hasard mais yow jullit da ngay gëm yàlla da nga naan yàlla def yàlla rek mooy def lu ko soob ci ay jaamam looloo tax nga gis benn oto jóge Rosso Mauritanie di daw di daw toute la nuit benn oto départ à Dakar daw une heure de temps ñu daal di daje àllub kaañ rinkum nga gis lu ma dii moor mbokk loolu yàlla subhanahu wa taala moo ko dogal il fallait ñu dog daje fa ci heure près minute près ci dogalu yàlla jàlla waala loolu it la suñu borom yàlla wax ne ci loolu la dogal loolu it moo tax ba nga la wayyow julit rasul sallallahu alayhi wasallam dala daan wax ne lépp loo xam ne jàpp nga ne sa intérêt ca nekk na nga ca xir waaye lépp lu yàlla dogal waxal lii mooy li neex yàlla nga nangu loolu bul nekk mukk naan su ma yëgoon su ma yëgoon boo yëgoo nit du tee li neex yàlla rek ay am am déet mi ngi noonu mi ngi noonu borom bi subhanahu wa taala kon loolu la wax mu ne nag lii def na ko ay mbiram kenn mënu koo dandal mi ngi noonu li yaqdi la amran kaana mafuula borom bi nag nee ne def ne lii ba ëllëg ki si biir mu doon lu ràññetlu ne day muhammad ak i sahabaam ñu nekk ci dëgg képp koo xam ne yaa ngi nekk di dund nga dund ci loo xamee ne nii lu leer la ci yaqin la képp koo xam ne yaa ngi dem di dee it nga xam ne yaa ngi dee ci loo xam ne nii lu leer la lu yaqin la donte ne ne dund googee da ci gën a am solo mooy dund xol dégg yet la nga xam ne mooy dee xol waaye ala kulli xaal yow mu badar moom ñëw na nekk furqaan teqale diggante dëgg ak fen mi ngi noonu Cheikh Ali
إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون jazakallahu xayra suñu borom mu ne is yurikahumullah yow yonent bi bala yàlla di won yéefér ya fi manaamika qalila nga gis leen ci say nelaw ñu doon ñu néew ay gis a gént walaw araakuhum kasiran la fashiltum bu la wonoon yéefir yéefir yi ñu nekk ñu bari kon day doon ngeen doon ñu nasax ay tiit ragal dellu gannaaw wala tanaza'tum fil amr kon doon ngeen nekk di xëccoo ci mbir yi walakin allaha sallam waaye yàlla mucce la ci loolu lépp innahu alimun bi zaati sudur ndax yàlla day dafa xam la nga xam ne moo nekk ci biir dënn ya wa yurikumuhum iz iltaqaytum baleen yàlla di won yéefiir yi tamit ba ngeen di dajeek ñoom fii ayunikum ci seen bët yi yéen jullit ñi qalilan yéefére doon ñu néew wa yuqallilukum yéen it mu néewal leen seen lim fii ayunihim ca bëti yéeféer ya li yaqdi allahu amran kaana mafuula ngiree yàlla daa di dogal mbir moo xam ne mbir mu war bu bu waroon a nekk la mbir moo xam ne buy nekk la wa ila llahi turja'u al-umur ci yàlla nag la dellu lay dellu mbir yépp yaa ayuha alladina amanu ay yéen julit ñi gëm ida laqitum fiatan fasbutu heure bu ngeen dajeeg benn kuréel ci yéeféere sax leen wazkuru llaha kasira ca ngeen di tudd yàlla lu bëri laallakum tuflixuun ngirey ngeen doon ñu texe mi ngi noonu mbokk suñu boroom bokk na ci xikma bi mu def yonenti yàlla bi day wax ak moom ci jëhran di wax ak moom ci gént yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def mu gént bu mu géntee gis armée Quraysh ñu doon lim boo xam ne lim bu néew lañu naam doonte ne junni lañu woon matoon nañ trois fois armée bi mu yor bi mu yeewoo ci la nga xamee ne mooy gént yooyee mun a saxaaba yi bég leen ñii ñuy tiit kat nekk ñu lu dul loo xam ne nii ñu néew lañu loolu muy benn borom bi subhanahu wa taala ne booba mi ngi leen di bëgg a armé ay dëgëral leen seen xol ndax bu doon tene ne dafa wanoon yonent bi alayhi salaam ci gént dëgg-dëgg ni yéeféer yi toll ca mooy mat nañ junni ca moom ñetti téeméer la yor mu wax ko nit ñi suñu borom nee na kon ñu bëri ci ñoom daan daan tiit ñu bëri ci ñoom daan xëccoo waaye yàlla dafa bëggoon a mu muccale ci loolu lépp loolu muy benn xéewal bu leen yàlla defal ñaari xéewal bi biñ demee ba ñaari armée yi jàkkaarloo suñu boroom yéefir yi junni lañu mais def leen tuutil ci bëti jullit ñi dañuy tudde rayul ayin ah bët ci gisuñu bët ba ibnu mas'ud day nettali ne keroog maa ngi dend ak benn waay waa ji ne ma waaw ñi est-ce que mat nañ soixante-dix ma ne ko non yaakaar naa mat nañ téeméer daal yaa ngi dégg te ñi ñu jàkkaarloo junni lañu mais yàlla def loolu mi ngi noonu ca mbokk xam ngeen te ji suñu borom lu ko neex lay def day gis benn waay boo xam ne bët yi neexul mën nga koo won benn mbir boo ko waneen sa baaraam moom ñaari baaraam lay gis est-ce que mu xamu leen loolu naam loolu ra'yal ay na la mi ngi noonu mën na xool poto bee fekk ñaari poto lay gis ca benn poto fi nekk kon it noonu la suñu borom def néewal leen waaye itamit ña nga xamee ni mooy ju julit ñi ñetti téeméer lañu yéefir yi gis leen jàpp ne ñii de ab téeméer lañu ah ñii de jaruñu sax préparé wu di jël ay yenn armes yeeg wala yenn matukaay yi xam naa ne ab lanc lañ leen di def loolu borom baa ngi ci jublu jullit ñi am fit mën a sóoru yéeféer yi waaye jublu ci it yéeféer yi bañ a jël ay matukaay bañ a nasax ba nasax ngiree sunu borom daa daal di indi ndimbal bi nga xam ne moom la dégg ab yeneen tam moo tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ne li yaqdi allahu amran kaana mafula borom bi feddiliwaat la mu waxoon sànq wa ila llahi turja'ul umur mbir yépp ci yàlla lay dellu nga la way yow julit gëmat loolu xamal ni tubaab yi sax dañ koy wax ah l'homme propose mais Dieu qui dispose doomu aadama bi li nga mën mooy sabablu sabablu boobu nga mën nag def ko waaye xamal ne yàlla rek mooy dogal tey da ngaa bëgg doom lan nga man takk soxna def ñu góor ñuy def mais ndax yaa mën ngaa may sa bopp doom déedéet abadan yàlla moo koy def tey jii da ngaa bëgg alal lan nga man takk sa ndigg kër kër yi léeg-léeg nga dem bitim réew léeg-léeg nga dem fu ne mais ndax yaay may sa bopp déedéet yàllaay may alal de tey jii yaa ngi jàng ndax réussite ba ci say diplôme fu muy jóge ci yàlla lay jóge de loolu moo tax ba jurit lool la gëmal daal ñaar yi damaa war a sabab lu naam waaye nag ndogal yi ci loxo yàlla la nekk ilallahi turjaul umur loolu mooy tax ba lépp loo xam ne da nga caa échec sa xel day dal da ngay jàpp ne lii yàlla moo ma ko nattoo mën na am li tax mu nattoo ma lii daf maa denc lu gën lii am déet waaye day taxit la nga wuti woon boo ko amee nga bañ a bew xam ne kat lii yàlla ci mbaaxam na la ko defale nga bañ a bew sant yàlla ngir yàlla dolli la lu gën loolu wa ilallahi turjaul umur borom bi it joxee ndigal jurit ñi ne leen su ngeen demee ba dajeeg seen noon ci toolu jihaad ngal la waay sax leen jàng nañ ca dars yéen jàngoon àll àllarba bi jiitu bi passé borom bi ne képp ku daw safara muy wàccuwaayam ñu ngi noonu kon sax leen waaye nag tudd leen tudd leen yàlla lu bari ndax ngeen texe ca mbokk zikrullah mi ngi noonu moom muy motuuru jullit borom bi nee na ala bi zikrillah tatmainul qulub ci zikrullah la xol di dale looloo tax sahabatul kiram heure bu ñu masaan dajeeg noon yi ni ñu doon xeexe seen lammiñ daawul denc zikrullah doonte ne daaw daaw daaw ñu nekk di yuuxu ci zikrullah boobee lu dul au moment yi ci ñi attaqué lan daan attaqué ak allahu akbar boo xamee ne nii daf daan yëngal xolu ña nga xam ne mooy yéeféer yi mbokk negam ki yor jaasi di jihaad di xeex lañ naan ne def zikrullah ana ki nekk biroom nag ana ki nekk marchem ana soxna say fóot ana ka nekk ca waañam ana baykat bi nekk ca toolam ana ana ana ku nekk ngal la waaye góorgóorlu leen fu ngeen mën a nekk lépp lu ngeen def ngeen boole ko ak zikrullah day leen tudd yàlla lu bari loolee day tax ngeen texe mën nañ cee boole tey li ñu yàlla nattoo fitna bu rëy yàlla nattoo nañu tey musiba bu whatsapp yal na yàlla musal ñu ci musibaam waaye comme yàlla nattoo nañu il faut ñu sëgg ci une heure de temps trente deux heures de temps nga la waaye nañ koy booleeg zikrullah del défilé subhanallah subhanallah subhanallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bala ngaa pare da nga def am na ñoo xam mën nañu def douze mille ndax mën nañ cee sëgg lu jege deux heures de temps essayé leen ko rek mi ngi noonu képp ko jëlee ci whatsapp nga la waaye na ko booleeg zikrullah ndax borom bi ñeene bu ngeen dee xeex boole leen ko zikrullah fu ngeen mën na def da leen bokk zikrullah zikrullah bu jógee ci xol bu yàggee day feeñ ci ay cër loolu mooy tax nga daal di texe àdduna texe àllaaxira yal na yàlla dimbali ñu ñu koy fàttali ko fu ñu mën a toll di ko sant nam yeyoo di ko jaamu jaamu gu sell mu defal ñu àjjana suñu wàccuwaay wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ah waaw mufassiruuna yi mooy ñi tafsir alquran ñi tafsir alquran ñoom la ñu tudde mufassiroon lu mel ni aljarir tabari qurtubi kenn xamul mat nañ téeméer bu ko defee ku nekk say tegtal yi nga am moo tax ngay jël benn aaya ñii firee ko nii ñii firee ko neneen ci tegtal ya nga xam ne moom la ñu am doonte ne firi yi mën na nekk lu wuute fekk jubluwaay bi benn la masalan aaya boobu ñu doon wax sànq mooy wa ma kaanu awliyaa ñii ne wa maa kawna awliyaa nekkuñu wëli yuy yàlla ay nekkuñu féete yàlla am ñeneen ñu ne wa maa kawna awliyaa nekkuñu féete masjidul haram ku moom masjidul haram du yàlla la chaque ne féete yàlla ñuy féete masjidul haram féete masjidul haram ñu féete yàlla kon foofu wuute nañ ca nañ ko waxe fekk seen jubluwaay benn la looloo tax ba da ngay gis ne am nañu ci bind ay téere ku mel ne al Muhammad al Amin Shinqiti daful ibham boobu mu def gannaaw adwaawul bayaan da cay expliqué ne ne juróo yi ngay dégg ci mufassiruna yëpp boo ko xoolee presque day dellu ci benn mbir mi nga noonu wallahu subhanahu wa taala alam amma ndax ay borom kër ak soxnaam suñu amee doom waruñu koy tëral ci seen diggante loolu de xam naa la ca gën a la ca nekk mooy borom kër ak soxnaam kay dañoo war a doon ñoo xam ne nii ñuy sosaloo lañu ndax suñu borom mu ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ñaareel bi ci wàllu sécurité tamit yaa ngi nelaw kii mu nelaw ngeen def ko seen diggante loolu it du sécurité waaye daal nañu xam ne du texte bu l'islam moo naan ji doom buñ ko teg diggante borom kër ak soxnaam wallahu subhanahu wa taala alam naam ah ah waaw moo waaw naam waaw mooy mu fassiru na mooy ñii firi alquran waaw bu ko defee mu ne mu fassir mooy ka nga xam ne kenn koy firi bu ko defee nag mbooloo ma mooy loolu naam bismillah naam naam ku gaañuwoon ci tànk mu mu ragal ci ndox bi laal góomu am na soo am pour massage ci kaw barne bi ak jàpp ndax dañ koy tegle wala lu ci nekk def
ko massage ci kaw tànk bi ak jàpp massage ci kaw bandage bi ko defar waaw wala mu mu tiim waaw wala mu tiim waaw ndax am dañ ko teglee ci wala waaw ala kulli xaal day loolu nekk na loo xam ne nii lu borom xam-xam yi am wuute am na ñoo xam ne dañu ne bu dee da nga am foo xam ne da nga koo war a raxas sa yaram ca band nekk fa seetal la nga mën a raxas nga raxas ko la nga xamee ne nii mooy band ba nga masa ca kawam sa sa laab mat na te doon sangulaam farata la massa ci ko band sa laab mat na doonte ne am na ci ñoo xam ne dañu naan maadaama laab bi matul ndax da ngaa band fii su ko defee na nga ca boole nga daal di tiim mooy jàpp la nga mën a jàpp la ca des nga tiimal ko ku mel ne ay Usaymin yooyu ak ñu ànd ak moom loolu la ñuy wax waaye am na ca comme na ma la waxee mbooloo borom xam-xam yu jëkk ya dañ ne maadaama bande bi la nga xam ne mooy la la am s- la munta ñàkk rek lañ band waxuñu band boo xam ne dafay dépasser de trop mais lañ munta ñàkk band rek lañ band ca ah góom ba wala daga-daga ba su boobaa boo ko massa dana doy mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam ala kulli xaal kon mbokk yi incha allah ñu doy ah na mooy ñi nga xam ne seen tànk dañu ko plâtré ba mu daj
waa ala kulli xaal ñi nga xam ne seen tànk dañ koo plâtré ba mu daj ci ñaar yooyu rek lay dellu imma nga raxas la nga xam ne mën nga koo raxas lépp massa plâtre bi yépp massa plâtre bi yépp su boobaa plâtre ba ngay massa ak bande ba ngay massa ñoom ñoo yem bu ko defee loolee am am na ñu ne loolu dana doy ci laab donte ne comme ni ma la ko waxee la nga xam ne ñeneen i borom xam-xam dañu daal li gën a peek mooy boole ko ak tiim loolu mooy la nga xamee ne ni mooy lay matal laab ga mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallama waaw xam naa ne waaw ñu mujj ci mbokk bi rek waaw bismillah ñu mujj ci moom rek waaw boo tiimee ci jàppoo ah boo tiimee ci jàppoo day lan le- le- la- lan moo lan moo tax nga tiim ah boo boo ñëwee rek nga daal di nga daal di tiim fekk ne yow nekkoo jàppoo waaw ala kulli xaal su ñëwee soo jàppee itamit ne yow day da ngaa gis na yow da ngaa war a sangu te yow mënuloo sangu nga daal di yem ca tiim boobee du ñu mën a wax ne sa julli googee baaxul ndax la chaque ne dajale ay tiime ki njàpp loolee amul nit ki da ngay tiim wala nga jàpp su ko defee même ñooñu nga xam ne dañ naan soo ma see bande bi pare da ngay ja da ngay tiim la chaque ne la la la lay laabal mooy tiim ba mais pas la nga jot a def ñoom lañ ca duggee rek mooy defal sa kemtaleel kattan maadaama mun loo raxas yëpp raxasal la nga man waaye nag tiimal ngir nga mën a julli loolu it day wane ne ki am ngant bu tol noonee bu tiimoon kese rek daal di julli kenn du mën a wax julleem baaxul donte ne nekk la gën yonent bi alei salaam dane su ma diglee def leen ca la ngeen man la nga man nga def ko la ca des nga massa ca bànd ba wala boog nga tiim ngiree gën a dal dal xel wallahu subhanahu wa taala aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain